Je vous remercie, di nuyu ku ci santam di en tant que coordinateur du collège des délégués de la RTS Mangi wo agent RTS yëpp ñu mobiliser demain inshallah, mardi demain mardi inshallah, mobilisation exceptionnelle pour faire face aux mesures arbitraires que nga le directeur général Pape Alé Niang mi koy jël ci RTS contracteurs yéen ñi nga xam ne ay décisionnaires yi yéen ñi nga xam ne ay prestataires yi bu kenn des ne ñëpp génn si on va lui barrer la route incha allah ce mardi 2 juillet ndax mënuñu toog di continuer mu ne day wàññi salaire yi déjà wax na trésor bi nga xam ne mooy ressources humaines mu changé li nga xam ne mooy bulletin de salaire yi mënuñu toog 100000 francs yi nga xam ne mooy eh, avance tabaski mu dagg ko. Mounou Tok, nous couper les lignes téléphoniques. Mounou Tok, nous avons un contact qui a deux ans, pour recruter recruté les techniciens, les caméramans, les journalistes, les agents administratifs, en moins de deux mois. Mounou Tok, nous avons un prestataire qui a 300 000 dollars, nous avons 100 000 francs. Mounou Tok, continue de Tok, Pape Alenia, de continuer de faire des choses. Nous avons un agent RTS. Nous mobiliser, on va lui faire face, on va lui montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures impopulaires. Nous avons gis salaire deux mois trois mois de suite après un DG vient pour remettre en cause ses bulletins de salaire Nous, avons ministère des finances salaire on va les faire reculer pendant ce temps un DG vient ngi de millions da nga waroon njëkk xalaat ne dama war a wàññi sama juróom million ba pare doogo tourné ci agent yi ne leen wàññi leen seen salaire ndax affaire bi affaire de bonne gouvernance mais doo bokk sa juróom million dugal ko sa poche borom 200 cent mille yi trois cent mille nga ne leen yéen damay wàññi seen ay salaire nous ne serons jamais d'accord avec ça maa ngi leen di woo sur mobilisation bi mardi incha allah très tôt toute la journée bu dee si régions yi les gens se mobilisent avec des brassards rouges la presse locale incha allah incha allah yàlla dinañu may ndam ndax li ñuy wax yépp ci dëgg lañ ko teg te ci leer lañ lu leer lañ ko teg jërë ngeen jëf